aouzu billahi samil alim min sharri iblis seytaani rajim bismillahi rahmaani mbokk yi topp naafile yi seen naafile koor gi fii ci Fekh TV kon tey jii di guddig juróom benneel ga sopp nañ ku ci julli ñaari rakka bu ci ne fatiha benn yoon qul huwallahu ahadun fukki yoon ak ñaar muy douze fois mel na ni ku julli ca maqaama Ibrahima junni rakka julli yët ca Makka junni rakka saraxe junni dërëm leele junni ñu xiif maanaam junni ñu xiif nga jox leen lekk mel na ni it ku ku dundal xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bépp te bu faatoo it ñu boole ko ca ña dee ca jihaad ak yeneen tiyaaba yu baree bare bari yoo xam ne mu ngi ci guddi googu kon seen xikma bés bi mooy topp yàlla ak sopp ko ak bëgg ko ak topp ñi mu bind ak sopp leen ak bëgg leen te jeexal takk sa jëm sa dund ci topp sa borom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.